dikkati na ndax élection présidentielle dina am lii mooy laaj wi turbine yéen a kaay naan kon maa yey samp laaj kay samedi gii ñu ne zéro heure la campagne électorale bi di door te waxtu wii ma ni la ña ngay ubbi ab l'enquête jëmale ko ci juge yi nga xam ne ñoo ne Karim Meïssa Wade mënta bokk ci les élections critique yéen a kaay naan kon te juge yi nga xam ne ñoom la ñuy tuumaal ñoom ci boppam ñoo war a joxe résultat keroog ba nga xam ne élection nañu ba nuppi turbine yéen a kaay naan kon moo taxit laaj samp na ma la ndax élection présidentielle dina am bés naan kon ay baat daal mi ngi wax waxi report ay a ngi naan ci suuf dàq élection dàq élection en tout cas wallu ak bennoo ni nu ñu jubóowe temps yi tey na xel seen ànd bi mani la laf ca xam nga sab tuba yu noon soo fekkee sab soppe daal di koy sol bu yeboo sab xel teey tribune yéen kaay naan man lii nag moo dal waa yeewi askan wi nee ñu bureau boobee nga xam ni boole woon nañ leen ci bokkuñu réew mi ko dijee naan kon terewul assemblée nationale nee nañu waaw nañu taxawal commission d'enquête parlementaire bi le quotidien le quotidien mel nu ku naan kon yow bëggal rek yaa nga ca doowa waaye bëggal ci réewum Sénégal mu daal di am moom Karim bëgg na commission d'enquête parlementaire taxaw fi mu ne na geneen bëgg-bëgg la doomu Abdoulaye Wade ji bëgg daal nee na élection présidentielle yi ci réew mi nañ ko dàq ba jëmmi jamono Sud Quotidien nan kon en la mu bëggoon am na ko moom Karim Meïssa Wade téeméer ak ñaar fukki député daal dina ñuy wote daal dina nañu taxawal ab commission d'enquête parlementaire ñaar fukk ak ñeent daal dina àndunu ca amul ku bank yoxo ñépp wote ñii wii nan kon lan moo tax ñu ëpp ca Benno Bokk Yaakaar Dakar dem jàppale ji Karim Meïssa Wade te Karim Meïssa Wade moomee kàddoom moom moo di nañu dàqee élection yi moom yeewi askan wi ne dàquñu tey dàquñu ëllëg diggante Thierno Alassane Sall ak parti démocratique sénégalais daal di xajam ba maa day taali turbine yéen kaay nan ko déet démb kay maam jaara faam koketam la simmi façon ko yéene ŋàdd Thierno Alassane Sall ware saar di yekk Thierno Alassane Sall keteme assemblée nationale jax laas naan kon lu mu jax-jax wàllu ak genn parti ci taxawu daal di ànd ci taxaw commission d'enquête bi Guy Marius Sagna ne président Macky Sall benn bëgg-bëgg la moom moo di dàq élection yi laas naan man en tout cas ni ki démb tuuti làmbaay ñaaw ci Thierno Alassane Sall moom Thierno ne ab plainte laay jël jabb ko képp ko xam ne dal nga sama kaw ni ki démb ci assemblée nationale léefo yéene kaay naan kon Benno Bokk Yaakaar parti démocratique sénégalais daal dina ñuy defub say ni ki démb fitnaal assemblée nationale Lamine Thiam ne la ñu bëggoon am nañ ko te suñu bëgg-bëgg gii mënees na ci duut baaraam conseil constitutionnel ma ni la la mu sempee Karim Meïssa Wade ci élection présidentielle bi du droit te daañu fexe ba wan leen niit lii du droit moom Seydou Diouf ne la parti démocratique sénégalais def yoon la jaar te ñu nit dañoo bëgg mbir mi leer lan mooy problème bi ayib dafe naan kon problème bi mooy mode fast track ngeen daal di jëfee te faralu leen ko di ko jëfee daal luñ leen tegal ci table bi ngir commission ngeen dàq géej te bu ñu xoolee ma ni la lan moo waral taxaw commission bi ay ree kaay naan kon ma ne la mbir mi ci boppam moo tàmbalee tey xel moom président Macky Sall keroog ba nga xam ne opposition bi dem na wax ak moom ne ko Sall dañoo bëgg nga wax ci conseil constitutionnel ak na mu dàqee yenn ciy candidat président Macky Sall ci boppam moo bindu bataaxal ne conseil constitutionnel lu mu jëfee man sàll mënuma ci dara tey jii nag ñu bëgg a tuumaal Amadou Ba laaj ba moom moo di Amadou Ba mi nga xam ne nee ñu dafa ger yenn ci ay juge bu doon am na boobu la dogal moo tax la mu dugaloon ngir ñu naj Bassirou Diomaye Faye waaye jàllul critique yéen naan kon en tout cas ak lu mën a am fi ne moom élection yi saboté nañ ko ba nuppi nañ ko nangu ndax nag juge yi nga xam ne tuumaal nañ leen fii ak élection bi di ñëw ma ni la amuñuy pexe ngir setal seen bopp te juge yi nga xam ne tuumaal nañu leen it bés bu élection amee ba nuppi ñoom ñooy joxe résultat yi te ku mu neex taxaw ne juge yi duñu joxe ay résultat lu ca waay mën xam nga lan la bu ñaawee daal ñaaw na ba nuppi nañ ko wax le témoin yéen kaay naan tegaloo ñenn ñi naan nañu dàq élection présidentielle bi ñeneen ñi naan élection moom dem ca par force la moom Karim Meïssa Wade di tëb di sara xolle ak di ndaga te naan la ma bëggoon am naa ko mooy commission bi taxaw dàq élection moo ci des di jee naan kon fi ne assemblée nationale ci boppam moo jaxasoo assemblée boo xam ne na mu taxawee woon te ndoorteel ga mujjeewu ko ndax PDS ak Benno Bokk Yaakaar ñi fi amoon ay problème doon nañu ay xarit lënkonte mbagg taxaw ak pur ñàkk ragal wax fu nu féete ndax nag bëgg nañ ëllëg bu lépp leeree ñoroo ko jeeru daal di lonk parti démocratique sénégalais seen mbagg wal fu ko di jee naan kon fi na ne ñu ngay suwe théâtre ci assemblée nationale ci réew mi turbine yéene kaay naan kon fii la réew mi tollu de fi mu ne nag bugaan géy dani mbaadu nag mooy faiseur de roi ci réew mi moom jiital gëm sa bopp day bokkul ci élection présidentielle yi waaye fu ne waaye fay bàyyeekoo ngir dagat ak baatam waaye tam tey ci loxoom naan kon géy àndal ak ñun ñu daal di ñaabar ñaabari daal di si élection présidentielle bi géy bootu si ñu daal di ànd ak yow ngir daal di ndam yéene kaay bi naan man gannaaw jomaay ak Pastef yi nga xam ni demoon nañ seeti ko ngir Bougane Gueye Dany ñëw ànd ak ñoom ci élection présidentielle bi tribune yéen kaay naan man Aliou Mamadou Diabou Pur moom it daal dinay dem seeti ni ki démb njiital gëm sa bopp Pape Djibril Fall daal dinay dem seeti ni démb njiital gëm sa bopp Anta Babacar Ngom ni ki démb it daal dinay dem seeti njiital gëm sa bopp ñoom ñëpp nag benn nag mbébét lan ca am moom moo di daal dina Bougane Gueye Dany ñëwal jàppale ñu ci élection présidentielle bii ngir ñu ànd am ndam moom Bougane naan leen tempo tempo rek samedi gii laa fas yéene wax fa ma féetee fas yéene wax na kan àndal ci élection présidentielle bi Vox Populi naan man yi la élection daal xel daf caateey ñeenti fan moom moo des ñu ubbi campagne bi laaj ba dëgg-dëgg du koy àndal ak koodul àndal laaj ba mooy ndax élection présidentielle dina am élection yoo xam ne lépp jaxasoo moom Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne candidat la sax nee nañ ko yow doo génn kaso dem campagne yi tribune yéene kaay naan man fi mu ne nag coow laa nga ci Omar Maham Diallo ndax nag moom ci boppam mooy dëkk président Macky Sall keroog ba nga xam ne gaa yi rëkkale dem nañu seeti président Macky Sall moom juboo na Bassirou def demande de liberté provisoire su koy def di am bàyyib nëgandiku Bassirou Diomaye fay ma ne la loolee la daal di def sàkku bàyyib nëgandiku ndax mën mënta nekk kaso nag ay maasam nekk ci biti di campagne moom Bassirou du mën génn wax waaye doyen des ma am Diallo daf ne ko kaso ngay des faxas genn wet nag nar a am ci la élection présidentielle yéen kaay bi tontu boppam naan koon bu dee dina am taxas féete benn wet moo ca daal di am ndax nag ñii mënuñoo nekk ci biti am temps ak dem ci askan wi di jaxasoog ñoom di campagne ni ñoom war a toog ci biir kaso bee amul sañ-sañu wax su dee lii mës na am ci Sénégal laaja ngoog l'observateur naan kon en tout cas yi bari na ñaar fukk xaalis wa ca war a dem bari na ku nekk ma ne la ñaari milliards war nga koo soxla ngir am campagne bu baax le quotidien le quotidien naan maan booba laataa ñuy door gile campagne moom Serigne Boub day Serigne Daara yi ña ngi koy tàccu naan kon yaay suñu candidat ci l'élection présidentielle ñoom Serigne Daara yooyee fekk Serigne Boub naan kon kaaj suñun nga bokk suñuy wër candidat boo xam ne mooy suñu bos yor profil bu baax bi yow a sëriñ ndax sëriñ daara bu jëfee ni nga jëfee ba yegsi fi nga yegsi jar naa jox réew mi turbine yéene kaay naan koon ban réew ban élection ban processus lii de boo moytu dañ koy màbbal ni bâtiment bu yànq tàmbali waat nag tabax gi à zéro yéene kaayub des média bi naan waaye lu mën a am bu leen fàtte scandale yi nga xam ne jaar na ci réew mi ñu daal koy fàtte fàttelu kenn waxatu ci nag tey jii nag ña ngay taxawal ab commission d'enquête parlementaire waaye bu leen fàtte ni bari na ci yoo xam ne waroon nañ ko taxawal fast ay milliards daal di nañ ko ni France daal di lekk cour des comptes ay rapport am 2018 rapportu 2019 ba 2020 ay ministre yoo xam ne tuumaal nañ leen ci réew mi France daal di xidéem ay directeurs généraux ñu tuumaal leen France daal di xidéem ay dage ñu tuumaal leen France daal di xidéem bu université Assane Seck bu Sigicoor anamu France turbine nan man tës ngi juróom benn xale taaliba yoo xam ne ñi ngi am diggante juróom ñet jàpp fukki at ak benn seen sëriñ daara leen versement lu toll ci fanweer ak juróom xale yi ko